démb ci kàddu Serigne Bass Abdou Khadir en tant que député tu Touba ngir ma ñëw fekkee gan gi nga xamante ne mooy président de la République mi nga xam moo ko ñëw seet si gan nga xamante ne mooy président mi nga xam moo ko ñëw ngir en tant que njiitu réew koo xam day ñëw di tàggu si ki nga xamante ne mooy Serigne Touba ak liggéey bi ma Serigne bi dénkoon jëmoon ci statut spécial bu Touba bi. ma ci doon liggéey ak moom ak sëriñ Basta président de la république war koo jël pour war koo jàllale Assemblée nationale loolu moo nekk samay tànk fii ci kër Serigne Mountakha saafante na ak président la république ak soxnaam wax na li mu war a wax Serigne bi ñëpp dégg nañ ko xam na ni sàmm kàddoom ak waxam moo tax mu bàyyi troisième mandat bi wax na ni kóllëre moo jiitu ay affaire nguur bëgg na Serigne bi ñaanal ko ba nga xamante ni fa mu jëm dana ko gënal fi mu nekk. ñun nag am nañ satisfaction parce que li ma ko wax xeex naa ko fukki at ak ñaar Macky Sall fexe naa bu mës a gañu Touba loolu laa seq ak moom mais askan wi si boppam laa bëgg chaque jour ko Touba ñu koy gën a jox gëdd ak cër ba assainissement bi nga xam moom la Serigne Bass Abdou Khadir wax mu toll si 47 milliards ren ma wote budget boo xamante ne juróom-ñaari milliards moo jógee si budget réew mi jëm ci assainissement bu Touba ñu gën a baral jéego yooyu noonu ñun bañu ñëpp nit li ñuy bëgg mooy askanu Touba bi ñu gën leen a jox gëdd gën leen a jox cër ba nga xamante ne lépp loo xamante ne ñu ngi koy jël ci réew mi mu toll 7000 milliards di biir ci Sénégal Touba gis ci boppam lii rek mooy samay tànk man député sëñ Touba la moomelu si Ahmed Bamba laa gëm moom laa wóolu sama lépp moom laa ko jox moo tax su ma taxawee ci pencu ndaw réew mi sëñ Touba laay gis bi ma sëriñ Mountakha waxee loolu tamit jébbal naa ko li nga xam mooy sama liggéey jël naa ñaar fukki moto pompe jébbal naa ko Touba jël naa ñetti téeméeri maanaam litre essence jébbal naa ko Touba 300 mètres tuyau jébbal naa ko Touba jël sama jëmm jébal ko fexe génn maanaam 200 milliards 2024 pour jox ko assainissement pour régler problème définitivement problème Touba ndax loolu laa gëm mu mën a am yàlla dogal na day dem nee na day dem keneen ki fi ñëw yàlla nekk yow yàlla nekk man parce que man bëgg naa mu nekk man bu nekkul man tamit ki koy yor giñ naa seexan bam maag mu ñu ànd pour yor ko te suñ Touba daan daan ñu jox ñu gagné Touba gagné gagné gagné gagné Touba defar Touba defar Sénégal. Macky Sall def na lu bëri fi nga xamante ne mooy maanaam fii fii ci Touba yéen lan nga jàpp lan moo ab gannaaw assainissement bi loo nga xamante ne jotu fi koy def te te mu mu ko fee bàyyi kenn war ko àgg. waaw xam nga li ñu war a gën a njëkk ne mooy spécial bu Touba bi moom sëñ bi bëgg na ko te defu ko ñu def ko titre foncier Touba bi ñu gën ko yokk gën a jox maanaam possibilité population bu ndëkk Touba ñu mën a am li am xëy jigéen ñi am ay formation yéene la nee na bari na lu mu bëggoon Touba sant ko ay ministre te defuñu ko moom xam na ni moom am na lu mu yéene mais ministre yi mi nga xamante ni tey ñoo waroon liggéey pour Touba mën a am ndam wax dëgg yàlla ak politiciens yi xam ñoo fi nekkal liggéey ko loolu moo tax li ko dal dal ko mais ñu ngi ko nag mu dem ak jàmm parce nag yéene ko woon li